Alors bonjour ou bonsoir, chers dépendants à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui encore, on est dans votre émission Talent du Kaolack tey ma invité ndaanaan boo xamante ne ndaanaan la si biir ndaanaan yi du ma leen ko présenté mi ngi nii toog ñu koy wax xës Paon xës ziar naa la. waaw delloo nañ la ziar frère. ak it yaa ngi si jàmm baax baax. sant nañ bu wër a wër donc dama lay bàyyi nga euh, présenté wu chers internautes ñu ñuy seetaan. waaw salaamaaleykum gars yi xës la le polyvalent du hip hop Galsen from Kelle waaw maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di nuyu site internet bi waaw di leen gërëm si invitation bi waaw parce que temps amul tey xam nga yéen a ngi def seen liggéey quoi di jéem a wane xam nga jeune talent yi waaw moo tax dañuy kontaan bu baax di leen remercier daal. merci beaucoup donc dootuma leen ko présenté comme ni ma leen ko waxee Kheuch Pawn la donc Kheuch Pawn euh, damay ñëw si question yi mais li ma leen njëkk laaj mooy que pourquoi pas pourquoi Kheuch Pawn du <laughs> moom. man sama tur bi Cheikh la waaw te Cheikh moom mooy xës waaw mhm. paan bi ba may nekk booy xam nga di commencé di rap samay grand dama leen doon fekk en répétition comme waa rap urgence quoi mhm. léegi ñoom période bi ñuy rab man baa ngi nekk booy mhm. mais dama leen di fekk ñuy répété may ñëw manit di freestyle yooyu noonu léegi sama benn grand bu ñu naan DJ Klouf moom moo nekkoon seen DJ moom moo leen doon wax naa leen booy bi pound la si rab bi waaw pound xam nga pound marque marque monnaie Angleterre la waaw pound mooy xaalis bu ëpp doole si xaalis yi mu ne leen kii pound la si rab bi mhm. kii des na tuuti moom mooy téye ji rab bi ok yee noonu la demee loolu tax ñu ni pound bi ok donc lan moo tax yow choisir def mbalax wala nga def reggae mais da nga ñëw dugg si hip-hop bi lan ba nga dugg si bëggoon nañ ko waaw non du dara c'est yàlla moom lu mu bind moom si nit ki moom alaa kulli ali noonu lay demee Eh, man nekk naa booy juddoo nag si koñ boo xamante ne peut-être koñu koñu mbalax maan la sax eh, mille kii rab bi fréquenté wu fa lu bëri mm-hmm. ndargu ndaw ku ko xam-xam ne presque tëggkat yeeg ñëpp fa lañ nekk eh, mais dañoo ñëw fekk suñu ay grand di rab mooy rab urgence kon sànq ñu ma la doon wax léegi après xam nga ma gis leen ñuy teglu nice mm-hmm. mais ñëw man tamit di enjoy affaire bi mu mm-hmm. ne pourquoi pas xam nga duma ma si sama grand léegi nag ma ko doon fooyee nànk ma dem ba affaire ëpp ma doole. Mhm. gars yi na ma force da ngay rab. eh noonu la demee. moo tax dugg si rab quoi. waaw mais au début ba nga commencé ak yi nga jotoon a sa vécu demoon nga ba si biir ne da ngay bàyyi wala xam nga ndax rab yombul surtout étant jeune. nga dugg si benn euh, milieu galsen boo xamante ne doo comprendre situation yi muy demee mm-hmm. yenn saa bëgg a xam nga euh, monim bi du demee noonu après loolu noo ko dundee yow. waaw waaw métti na moom wax dëgg. Mm-hmm. waaw fii ku fréquenté wul sax milieu bi xam na ne affaire dafa métti. Mm-hmm. waaw surtout ñun nga xamante ne ay jeunes lañ amul kenn ku ñu jàppale. Hmm. amuñ ay maison de production amuñ dara fii Kaolack yaa ma gën a xam. moo tax artiste bu fi commencé sax. Hmm. gars dañ naan la demal dakaar hmm. parce que fi amul dara. mais dara ñun dañ koo gëm rek di koy ñàqante. nekk si koñ boo xam ne tamit dañoo solidaire quoi. bu ñuy def benn affaire xam nga jeunes yi ñëpp génn ñëw jàpp si. waaw ñun depuis boobu ba léegi ñun suñ première année bu ñuy commencé rap lañ lañ commencé teg concert. di def ay concert yu mag nag. waaw xam nga di jël ay meilleurs concert waaw xam nga affaire day tar mais tamit dara yëfu góor la rek bu jeexee jeex na. léegi yow durant ce temps là ba fi nga toll nii tey mosoo am loo xamante ne c'est négatif si sa wàllu rab bi nga nekk di def mosoo see dégg loo xamante ne dalay dalaa dalaa naqari wala loo xamante ne tey dalay déstabiliser ba nga xam ne mun nga fa jaare sax ne da ngay bàyyi wala loolu mosul am. waaw fi moom àdduna la. Mhm. ku nekk am na jaar-jaar bu négatif. Mhm. waaw ñun Maulana Cheikh Ibrahima mooy suñu sëriñ. Mhm. te daf ñoo dañ ñoo daf ñoo jàng lu bari daal. yaa ma gën a xam boo nekkee si yoonu ndaw mm-hmm. lu bëri da lay traversé mm-hmm. mais dara da ngay gëmu rek jàll waaw am na lu bëri lu ñu traversé mm-hmm. waaw ñun des fois ñun même suñu concert yi sax dañuy toog di si wéet amul autorité bu ñuy jàppale ñun ñooy nekk di kërti kërti xam nga des fois affaire daf ñuy ëpp doole daf ñuy ëpp loxo parce que dañ naan xëspan mooy organiser rek oh. gars koy jàppee affaire boo xamante ne man ak sama gars yi toog mais affaire yi daf ñuy doole ëpp doole boo xamante ne yenn réglé yi dañuy dem affaire yi des fois muy dëgër man damay toog ba may wax gars yi ne booy est-ce que duñ arrêté concert yi parce que concert yi ñun duñ ci gagné dara yaa ngi dégg te bu dee tour ñun am nañ tour ba pare mhm. yaa ngi dégg mais dañ koy def tout juste pour que xam nga bégal xale yi yaa ngi dégg xam nga xam ne Kaolack mooy loolu am na i hop mhm. mais nag loolu bu ñu koy def quoi gars yi autorités yi ñooñu war di ñëw di jàppale yokku ñu doole mais dañuy seetaan nag mhm. donc passe boobu nañ ci dugaat léegi sama première question bi ma mooy que yow Ousmane yow est-ce que yow yow pare nga tey pour projet wala album yoo xamante ne tey pare nga pour fo foo na mag yegg kaw la quoi. waaw non mooy lu ma lay wax sànq rek ñun pare nañ pour def lépp mm-hmm. mais lépp moom boo koy def day fekk mooy taxaw mm-hmm. waaw ñun ku ñu xam-xam ne ñun ay ñun dictionnaire lañ mm-hmm. parce que ñun benn jour dañ ciy bind son ñun buñ bëggee génne album. buñ ko concentré woo si mois bii nii mun nañ bind lu ñu neex yaa ngi dégg mais nag booy bind album quoi day fekk tamit mooy nekk fi te kon lu ma la wax Kaolack peut-être xam nga manqué nañ ay jàppale quoi xam nga am amul tamit yenn structure yu xaw a mag yooyu noonu moo tax pour génn fi yenn projet day métti waaw mais daal ñu ngi teg ay stratégie di def nànk-nànk quoi gars yi di gis seen bopp si affaire yi. mais lan moo lan mooy li gën a nekk euh, royuwaay sa projet bi ak sa album waaw lu gën a nekk royuwaay comme. li li gën a nekk royuwaay si defar sa projet bi ak sa album bi. waaw lu gën a nekk waay royuwaay. comme ban façon royuwaay. tey pour pour comme ça nii tey yow sa album bi nga bi nga bi nga nekk di di defar ak projet bi. tey maanaam comme comme ni ma la ko souvent ni ko mën a waxee maanaam loo si namm quoi loo si namm. ak ñoo si ànd ak. ñun moom. kon lu ma lay wax rek ñun dépassé nañ ñëw di def benn affaire. ok ñëpp naan xëspaan xëspaan bu pare pare. yaa ngi dégg ñun lépp lu ñuy def rek dañ koy teg xam nga mu professionnel quoi mm-hmm. bu génnee nga xamante ne ñëpp dinañ kontaan xam ne carrément kii liggéey na affaire yi yaa ngi dégg ñun bu dee thème la dañuy def thème bu dee featuring xam nga waaw mooy loolu mun nañ lijjanti link yooyu yaa ngi comprendre mais nag mooy lu ma lay wax rek si kaw xam nga gars yi ñëw jàpp si ndax dakaar fii la ñu rawee mm-hmm. lu tax gars yi naan dem lem leen Dakar wala dem yenn yeneen régions yi dañuy gis benn artiste xam ne kii jeune la yaa dégg benn waay ñëw producteur quoi ñëw da ciy investir waaw parce que moom xam na ne après xam na lu mu ne mën a gagné yaa ngi dégg léegi da lay jàppale mais gis nga ñun tey jii nii exemple man maa ngi waajal suba concert presque bagage yu bëri ñun ñoo koy nekk di lijjanti man démb maa ngi tëdd ay yéen ay quatre heures du matin tey yeewaat ay huit heures. mais est ce que si comme pass parti boobu noonu nga wax nekkul ne lu mu doon ne rab Kaolack xaw ma ak aar Kaolack lu mu dee Kaolack moo tax. yooyu noonu du nga ci xaaw a génn quoi parce que d' après mes analyses man je pense que aar dafa dee kaw la. waaw aar daf fi dee mais nag instant yi ak booy di ñëw nii yaakaar naa quoi ñu dekkil ko parce que ñu ngi teg ay ay mouvement mouvement yoo xamante ne presque rapport yi bëri ñu ngi si mhm. waaw ñu ngi def ay réunion ak yooyu yëpp pour xool yan stratégie lañ mun a teg pour dekk culture Kaolack te yaakaar naa suba incha allah la sax lancement bi waaw xam nga incha allah daal boo am naa si ñoom yaakaar. mais yéen est ce que est ce que yéen meen yéen a ngi jéem di collaborer ak yi nga xam ne ñoo fi nekk di duggalante ak ñoom xam nga jéem leen expliquer nga jéem ñu jéem see jàpp ak yooyu noonu est ce que est ce que tamit yooyu loolu yéen waaw autorités yi moom ñëpp yemuñ quoi. Mm-hmm. ñëpp yemuñ parce que dañoo nekk si dëkk boo xamante ne dañoo dañoo naxante bi daf fee bëri. waaw naxante bi daf fee bëri quoi tey jii nii booy def benn affaire dina am ñoo xamante ne dañuy ñëw pour xam nga pour exploiter la yaa ngi dégg am ñoo xamante ne dañuy ñëw nag pour def ngir yàlla yaa dégg ñun nag suñ concert peut-être am na ñoo xamante ne ñu ngi siy jàpp mm-hmm. am na ñu ngi ci ñu siy jàpp quoi mm-hmm. mais nag xam nga ñun bu ñuy def dara Kaolack moo tax ñu koy def mm-hmm. autorité yëpp dañoo war a génn ñëw parce que tey jii nii kër de ville fi nii xoola concert yi fii am bu nekkee ngaa ko blindé la autorité dañuy dem jënd ji béy may ko booy yaa ngi dégg xam nga bu nekkee yeneen artistes la aussi tamit noonu ñun ñoo dëkk Kaolack ñun ñoo leen di sànnil suñuy kaar ñun ñoo dund ak ñoom métit bi ay dégg kon nag ñun ñoom ñoo ñu war a mën a pousse quoi ndax benn ngaaka Blindé bu ñuy jàppale ok ngaaka suñ ganaar la yaa ngi dégg te aussi tamit am respect quoi am na respect si moom parce que Sénégal ñoo ko bokk yaa ngi dégg mais nag ndimbal da say fekk loxoy borom quoi ñun ñoo dëkk Kaolack autorités yi dañ ñoo war mun a jàppale. donc kon est-ce que yéen jotul yéen artistes Kaolack yëpp ngeen réunion toog teg lépp si taaw bi ngeen wax parce que comme ni nga ko waxee tamit loolu souvent man dama ko fiy gis ay ngaaka wala ay commandé sax ak lu brique et ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Dakar bu ñu amee concert Kaolack waa autorité yi sax ñooy mujjee jël billet di ko di ko maye gens a xam ne artistes yi nga ne ñoom ñoo nekk Kaolack ñoom bu ñu organiser concert ñoom duñ si jàpp à 100 pour cent donc lan mooy lan problème bi exact entre yéen ak autorité yi non problème bi du dara lu dul ko lu ma la wax sànq rek ñoom dañoo jàpp ni peut yenn gars yi ñoom ñoo gën a célèbre mhm. yaa dégg ñoom bu ñuy génnee seen xaalis dañ koy def si loo xamante ne ñëpp dinañ leen gis te or que pourtant ñun Kaolack fii nii ñun am nañ fi tour am nañ fi public ñun bu ñu xewlee ñëpp ay génn yaa ngi dégg mhm. ñun bu ñu ñëpp dañuy génn kon nag xam nga public boobu noonu ñuy wëri si ñeneen ñi ñoom buñ ñu yokkoon doole quoi mhm. ñun am nañ public bu raw boobu noonu waaw parce que gars yi noonu ñoom seen dëkk dañ leen may doole yaa ngi dégg ba tey ñu mun a génn di représenté nag seen dëkk tey jii ku si génn Akhlou Brick looy wax Akhlou Brick bu mbuur ngaa ko bële na nga ne géejawaay dip nga ne fan Grand Yoff xam nga kon tey jii nii ñun tey ji buñ doon wax xëspaan xëspaan bu Kaolack la ñuy wax moo tax ñooñu ñoo ñu war a jàppale mhm. bu ñu jàppalee rek après xam nga affaire bi day gën a yaatu mais est tamit jotu yéen tamit yéen artistes yi ngeen jàppale seen bopp ba pare def innovation yoo xamante ne ñoom buñ ko gisee nga xam ne ñii kat waaw ay artistes lañ Kaolack lañ nekk am nañ talent pour ñu mën leen jàppale à 100 pour cent loolu tamit war na mën a nekk ngeen def ko. waaw man man moom bu fekkente ne yow xam nga ma. wala bu fekkente ne gars yi ñu ngi may topp. Mhm. xam nañ ne xëspaan si innovation rek lay dox. Mhm. parce que man chaque année. Mhm. man de ma part personnelle maa ngi teg sama concert. te concert bu may teg du doon concert bu ndaw. artiste Kaolack yëpp ñoom xamal nañ loolu seen bopp. presque man ñaata jeune laa fi promouvoir. am na ay artistes yoo xamante ne peut-être des fois yaa ngi leen di gis si kaw mu nekk artistes yu mag yoo xamante ne man sama concert lañ leen njëkk a découvrir fii ci Kaolack ndax chaque année maa ngi teg concert te concert yu teg yëpp jeunesse bi ñëpp dañ ciy gis seen bopp ñëpp ñu ngi ciy joué te boo waxee sax booy loolu lañ lay wax instant yi rab bu fi concert bu fiy gën a mag yaa ngi dégg moo nga xamante ne concert plein la sama concert lay doon te boo demee ay innovation rek nga si gis te amuñ jàppale kon tey bu ñu amoon jàppale tey jii nii day romb loolu kon dañuy teg ay festival yow ndax am nga ñu lay ñu nekk sa ginnaaw di la liggéeyal maanaam di la jàppale comme d'après sa projet bi nga xam ne moom nga war a def demee incha am na ñu la siy jàppale à cent si kii bi comment si partage ak si wàllum financement ak yooyu noonu waaw concert bi moom man lu tax ma teg ko pour que Kaolack instant yi nii dafa low yaa ngi dégg te ñun acteurs yi ñoo mun a dekkil affaire bi waaw doon naa si ànd ak sama gaay comme yenn rappeurs yi ñu siy waxtaan si biir léegi nag mais man maa initié affaire boobu noonu yaa ngi teg sama programme ba ma ko tegee nag ok xam nañu loolu moyen la laaj parce que foofu da ngay am sécurité waaw da ngay ama son lumière yaa ngi dégg courant bi yooyu yëpp quoi boo ko bëggee kii xam nga si foo xam ne géej la mhm. dafa laaj moyen ok moo tax nag xam nañ seeg suñu staff xool yan stratégie lañ mën a teg pour que affaire bi réussite amul autorité yi dem nañ ci autorité yëpp. nekk Kaolack yëpp. waaw même su suñ demul ci autorité yëpp sax. dem nañ si buñ demul ci autorité yëpp. dem nañ si presque quatre vingt quatre vingt pour cent autorité yi. waaw mais nag amul kenn ku si am na sax maa ngi jégalu di profité waale di koy remercier mooy. mbay Ngom mbay waaw moom mooy SG kii Serigne bu moom mooy secrétaire général bi mbay ngoom waaw ñu ngi koy gërëm moom tey rek apporter nañu benn soutien yaa dégg parce que ñu ak moom bañ gisantee yàggul sax bañ gisantee yàggul mais apporter nañu soutien boo xamante ne xam nga waaw déggante lañ daf tey mu laaj ma affaire fu mu toll mu expliquer ko. moom moom Mbaye Ngom. waaw moom Mbaye Ngom xam nga. ñu ngi koy santaale xam nga di koy gërëm bu baax a baax parce que tey lañ déggante mu laaj ma fu affaire toolu ma wax ko expliquer ko carrément que ni nag affaire dafa dëgër quoi mu mu de yónnee délégation ñëw apporter ñu benn soutien ak life sociale aussi tamit apporter ñaar ñooñu daal boo bëggee dégg-dëgg ñooñ jàppalee gum si concert bi waaw amul nag keneen ku ñu jàppalee di leen xaar nag tamit si bés bi parce que suba la te affaire bi métti na quoi di si au autorité yi xam nga képp ku si mun a jàpp na si jàpp quoi pour affaire réussite. donc d' après ce concert boobu yow naka a def euh, nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan yan yan kii nga a mën a teg xam ne pour sa yooyu noonu pour bu ñu ñëwee ñu mën a dinañ nekk à l'aise pour xam nga mën a suivre affaire yi découvrir ko. waaw waaw affaire bi moom artiste kii kon population bi yëpp yombalal nañ leen ko. Mm-hmm. parce que affaire bi defuñ ko paas. defuñ quoi. defuñ ko paas plein lañ ko def. Mm-hmm. yaa ngi dégg. ku ñëw di nga dund ambiance di nga xam ne Kaolack am na ay artistes parce que artistes yi ñëpp mënuñ jouer mais daal artistes yi ñu gën a ràññee si région bi dinañ jouer incha allah. donc yow lan moo la choisir tey nga def plein air pourquoi defoo concert boo xamante ne passe la ba pare da nga siy da nga gis sa bopp xam nga mun a mun a teg projet. waaw xam nga mooy lu ma lay wax rek ñun rab bi da ñun ñoo ko a dekk ñun ñoo ko mën a dekkal. fii si Kaolack parce que tamit. ñun buñ kon rab gaal seen daa dee Kaolack. non rap Galsen bi ñu waxantee dëgg xam ne comme nu nu mu fi meloon quoi melatu ko yaa ngi dégg léegi lu tax man ma teg affaire bii nii pour que day am ñoo xamante ne ay melomaan lañ dañuy bëgg a ñëw pour dund culture pour dund hip mais peut-être amuñ yenn moyens yi nii boo ko defoon entrée duñ am possibilité pour ñëw yaa ngi dégg moo tax nag ñu yombal ko ñëpp pour ñëpp ñëw découvrir si est-ce que yaa ngi dégg am na nag ay table table lu tax ñu def ko c'est parce que relais àdduna bu toj la nu ñu fay ñëw dañuy bëri yaa ngi dégg parce que ñi dañuy bëgg di divers mhm, waaw waaw léegi nag moo tax ñu teg stratégie boobu parce que dafay am ñoo xamante ne dañuy ànd ak seen famille ñëw dañuy soxla quoi xam nga toog stable nekk en sécurité yaa ngi dégg di am consommation lépp léegi moo tax ñu créé table yooyu noonu léegi table yooyu noonu dañuy koy wërale ak ay barrières teg si ay chaise ak table dina am aussi tamit consommation loolu lañ lañ def vingt mille table yi sax moom foog naa gaa ngi si kawam waaw léegi nag ñeneen ñi moom bu ñu ñëwee dinañ am possibilité taxaw seetaan quoi ok mais table yi moom dañ koy jaay moom. mais yow comme ni nga comme comme ni nga ko waxee question bi sa réponse bi comme rab ko Galsen dee kaw la. parce que man mënu ma comprendre que ne rab daa dekk wala ndax comme si ku mel ni Xuspan woon tey bu demee ba waa àdduna monde bi yëpp découvrir ko nga dem dakaar installé fa dem ñëw fàtte Kaolack après yow comme boo fàtte Kaolack noonu nga dem après kenn bu fi jaaree tamit def ni yow ni nga def noonu est-ce que tamit rab rab bi dina dina dina dina dina dina dégg dina dégg fii parce que genre am na ñu bëri ñoo xamante ne noonu lañuy def dañuy nekk Kaolack comme si ku mel ni waa kër gi kër gi dafa mel ni Kaolack la ñu dëkk non voilà donc kër gi instant bii nii est ce que ñoom def nañ ci dara loo xamante fii si Kaolack ndax tey waa Dakar am na ñoo xamante ne xam nañ ne sax pour ñoom kër gi ñoom dëkkuñ Kaolack Dakar lañ dëkk ak ñi nekk Kaolack am na ñu bëri xamuñ ne kër gi fii lañ dëkk Kaolack lañ dëkk genre loolu tamit est koo yokk maanaam pour dem ba am xam nga beew xam nga fàtte fa nga jugee yooyu noonu genre yaa ma gën a xam daal non dëgg la loolu tamit si la waaw mais loolu yëpp lu koy indi mooy que ni ñàkk mu ñàkk mu jàppale bi la parce que tamit des fois am na nit booy doon quoi benn ranking mun nañ la dundaloo benn ranking parce que da ngay nekk fii affaire di métti nga koy xoslu gars yi war la teg tànk yaa ngi dégg di toog di lay critiquer fii di di di di di fël say tànk pour bëgg la daane parce que Kaolack tamit da ngay ree ba sonn yaa ngi dégg waaw tey jii nii imaginel ngay nekk fii di koy ñàkkante muy métti nga koy nga koy ñàkkante di teg di def affaire yi am ñoo xamante ne. ñu ngi sa ginnaaw yaa ngi dégg di di gor say tànk léegi tey jii nii am na am na fooy toll quoi yow mun nga sacrifier sax gedd dëkk bi dem sa yoon yaa ngi dégg léegi nag yow boo geddee dem xam nga mun nga représenter Kaolack mais tamit xam nga sa base du nekk fii nii ok mais nag ñun moom wax dëgg suñ objectif mooy que ni kon xëspaan ba nga koy dégg ba léegi Kaolack la base yow parce que man ñaata nit am naa possibilité pour possibilité pour nekk Dakar parce que sama famille presque ñëpp ngi Dakar mhm. yaa ngi dégg man su ma fa demoon tey jii mun naa nekk en à l'aise ok mais nag man maa choisir rester Kaolack di représenter sama dëkk di koy ñàkkante fii quoi parce que yàlla bu nekk Dakar quoi pour man moo nekk Kaolack ok moo tax nag xam nga ñun moom lu ñu mën mooy xam nga di tegal gars yi ay événement mhm. yaa ma gën a xam gars yi di découvrir ñëpp. affaire bi doon ambiance Kaolack dundaat te instant si tànk yooyu lañ ne. mais est que pare nga sa concert bi suba. loo loo a indil gars ay surprise la wala nu mu fa demee waaw man moom sama concert ay surprise surprise moo fay am heure boo fa ñëwee da nga fay fekk surprise waaw man moom ndar ndaw laa dëkk ko lu may wax gars rek. wóor sa bopp daal waaw damaa juddoo Kaolack. Kaolack juddoo yoroon ndar gu ba pare teg si doon géwél. <laughs> kon conseil bi suba du yomb. waaw du yomb suba moom ay surprise yu bëree bëree ngi fa. kon gars yi bu leen ko tardé concert Xeuss Band bi demain la hmm. on se donne rendez-vous ne commandé sax relais donc euh, sans plus tarder Xeuss Band looy wax sa dernier mot. waaw di leen di remercier di woo jeunesse Kaolack bi yëpp ne leen na ne nañuy seetaat nañuy seetaan émission bii nii parce que émission bi objectif bi mooy que ni promouvoir jeunes yi la yaa ngi dégg. comme que gars yi ñoom xam nga ñëw nañ pour jàppale ñu ñun aussi tamit yoon la quoi ñu bousculer leen par la waaw di gërëm aussi tamit xam nga sama waa waa Kaolack yëpp laay gërëm parce que man gars yi des fois dañuy xaw a réeree mbir bu ñu waxee xës pound comme sax man su may dem yenn concert yu mag yi nii di yëngal gars dañ naan xës pound moom waa ndargu ndaw yi dañ koo gëm xës pound ndargu ndaw ñëpp dañuy génn di ànd ak moom mais ñun dañoo dépassé léegi ndargu ndaw parce que man des fois damay dem concert yoo xamante ne dama koy yëngal ñun ñëpp jug di yuuxu mais après gars yi dañ naan xëy waa Ndargu Ndaw dañ koy topp te man leer na ma ni foofu amul sax ku dëkk Ndargu Ndaw ku fay ne ndax Kaolack ñoom ñun mënuñ leen nax Kaolack dañuy dégg lu neex yaa ngi moo tax waaw kon nag tey ji waa Kaolack yëpp la sant di joxaat tamit ñëpp rendez-vous suba Kaolack yëpp nu ñëpp ñëw suba ñu teel a dund ambiance suba à partir de quinze heures mm-hmm. gars yi ñëw artiste Kaolack yëpp a fi nag. ñëw toj fa. waaw xës da koy yëngal. léegi yow lay wax lay wax euh, commencé dernier mot ne ñoom tamit euh, dañoo war mel ni yow xam nga gëm seen bopp xam nga focaliser wu seen talent Kaolack tey dañoo ñëwoon fii invité suñu artiste boo xamante ne daanaan la si biir artiste yi ñu koy wax Kheuch Pawn donc sans plus damay wax euh, commentaire sax autorités yi ñu jàppale artiste Kaolack parce que jàppale artiste Kaolack nekkul nga yëkkati xaalis jox ko mais da teg projet xam nga pour mun see mun a nekk. bu ko defee après bu réussir ñëpp mën a réussir aussi tamit di wax euh, li nga xam ne moo xew Sénégal ñun rafetlu ñu ko dara dara dara surtout maa rey yu bëri yi waaw dañ fay jaar di wax gars yi ne leen ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay dara jarul yenn yi dara tamit euh, jarul jarul kii ndax adduna day day day jeex donc sans di bëggee sama gars yi di leen wax ne artiste Kaolack xaar leen émission bi talent Kaolack dama ne képp koo xamante ne am nga talent fii si Kaolack rek seen clic day ñëw xam nga pour ñëw fas yéene jàppale leen xam nga jàpp si liggéey bi dooleel kaw Kaolack mu jëm kanam mais sans plus tarder maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi remercier waale docteur Baba moom mu ngi def liggéey bu am solo maa koy remercier à docteur Baba sama grand la waa ko am ku ku am ku am yitte la si doomu aadama moom moom lépp loo wax rek moom dali si jàppale. waaw kon nag docteur Baba ñu ngi lay o si suñ bës bi waaw suñ bés bi ñu ngi la si o waa di lay tàllal suñ loxo ñun tamit xam nga waaw parce que tamit xam nga ñun moom waaw ñu ngi sa ginnaaw quoi ndax ñun ku ñu jàppale rek la ñuy wër te comme que yaa ngi jàppale jeunes yi quoi ñun ay jeunes lañ lay woo pour nga jàppale ñu. donc docteur Baba j'espère que nga loolu xëspan moo moo lay wax message boobu te xam boo moom boo si jotee rek incha allah di jàppale baax a baax gars ñu xaar Tana Kaolack dama ne ngeen dugg abonné faat merci xëspan woon